jox ko jox na xam nga il est il est pas il est pas d'accord ci ko fenn li tegu ko fenn mais exemple yi ñuy joxe yi yi kiy joxe nii mhm. ah, c'est des faits non d'accord naa ah, non dama ne ah, dama ne xam nga non xam nga aussi yaa ngi dégg justice non d'accord naa ba mais man mënuma la limal ñaata ñaata ñaata ñaata justice ñaata nit la ñuy ñooy am ay problème fii ci réew mi waxuñu loolu wax ma benn def non dama ne non dama ne non waxuma loolu non dama ne dama ne xam nga aussi li justice euh, euh, kii euh, cas yi am ci yoon at waxuma sax at weer rek laa wax ba dem ba at bi jeex beneen at dellusiwaat ay at man daa jaar fi en un moment donné yow munoo ñëw taxaw rek salaamaaleykum maaleykum salaam ñaari weer justice ay bilan la da ngay teg un bilan nga xool bilan bi. par rapport ak li fi jot a déglu ma rek noo non déglu ma non déglu non non yow yow da nga def sa bilan wu justice pour un mandat qui vient à peine de commencer dama ne booy bëgg a xam ndax rupture am na xam nga nan ngay def mm. da ngay xaar au moins sax ba mi mandat li nga gisugum yow lan la non dama ne non xam nga non li ma gisugum du dara xam nga lu tax c'est parce que kaawu kaawu euh, Cheikh Bara la rek loolu moo tax mais lii xew ci justice ci ay injustice par jour loo xam ne le concerné le chef de l'État. déglu ma rek n'est pas directement wax ma ci benn rek te imputable au président Diomaye. non du ma jox ma exemple damal ne. man li ma lay wax leer na damal ne. Hmm? Euh,

mais boo deful dara nii du ma la sax wax kii c'est très rare ma koy dagg c'est très rare ma koy dagg sauf mu xaw a tudd sama tur ci biir affaire bi peut-être que ma bëgg ma bëgg ma bëgg see dugg mais c'est extrêmement rare xam nga laa bëgg wax mooy gis nga euh, euh, yow pour nga wax ni rupture yi am ci justice su Sénégal kooku dafa am ñoo xam ne ñooy tirer un bilan ci par rapport ak li fi jot a xew yépp ci wàll déglu ma non am ñoo xam ne ñooy tirer bilan non mais avoir un bilan am ñoo xam ne nga def mais am ñoo ko def non non non xam nga mun nga ne mun nga ne non mun nga ne le bilan ci ci ci euh, justice bi euh, ci réñu Macky Sall n'est pas terrible mais am na ñoo xam ne amoon nañu. très terrible laa koy non déglu ma non très terrible ça se dit pas. ah n'est pas terrible mais très terrible. pas terrible kay ma ne très terrible. non très terrible kenn du terrible. n'est pas terrible moo waral ma andi la loolu. le bilan de Macky Sall sur le plan la justice n'est oh, yow yaa ne le bilan du président Macky la justice n'est pas terrible. waaw nga ne c'est encore trop tôt am na plus que terrible. <laughs> c'est catastrophique. Euh, euh, euh, waaw. du président n'a fait ce qu'il fait ci bàyyil mu àggali ndax mu mun a dem si ñeneen ñaari. wala non xam nga la xam nga aussi. gars yi man man man man man man je veux que ñu gardions notre lucidité. ñàkk lucidité du dara lu dul. yow nit doog ay nit ñëw di euh, gouverner depuis deux moom moo tax Alioune Tine mi li mu wax ni sànq ngeen gis ne ma ne moom amul dara lu mu wax est-ce que est lii rek la bëgg a wax parce que yow munoo yow pratiquement soutenir nit ki soutenir un changement bokk ci ñi bëggoon changement bi changement boobu am ñaari weer nga ne état passéfien loolu il sait très bien ce que c'est un état passéfien c'est pas un état non pour wax la rek gars yi ni ñuy xalaatee du état du état wu. Euh, non ça n'a rien à euh, voir. xam nga lii lan la non xam nga tax ma dellu soit hmm. xam nga tax ma dellu soit parce que gars yi noonu la ñuy non parce que lui moom Aliou Tine li mu wax wax boobu du du loolu mooy problème bi leneen mooy problème boobu bu weesoo Aliou Tine justice ci wàllum justice pour wax la rek euh, ku nekk da nga am sa gis-gisu bopp man mënuma imaginer ñuy juger nit mu nga mu nga am une impression par rapport ak yenn jalons yi gars yi di poser dans le cadre de leur gestion parce que ci salon yooyu des fois moo tax gis nga waxuñ dañu ne on a l' impression mun nga am impression benn affaire kii ba sëñ Bara dafa am impression que nii euh, justice mi ngi dox. man euh, xam nga boo nee la conviction xam nga li ngay wax gëmoo ko sax. Ah. xam nga ma ne gëmoo ko parce que yow quand tu me de ce que c'est nga xam luy conviction avoir la conviction pour quelqu'un qui vient de commencer nga bëgg ko juger yow si tu la conviction dans une tu tu comme tu peux. ne pas être déçu mais Aliou di nga d' accord ni Aliou di waaw di nga ni. am na li daan am non ci li nga xaar ma dugal waaw maanaam démb. da daan am effectivement ñoo xam dañu leen jàpp ci post wala lu ñu bind vidéo nga gis ko nii. Mhm. muy jaar instruction yow def nga yoon. Mhm. loo xam te ne flagrant la waroon dem rek ñu jënd nit waaw. tey bu ñu toogee comme kaawu baa Diakhaté bi nga jël effectivement ak Imam ndaw dañu ñëw yóbbu leen flagrant àtte leen teg leen daan yi ñu jàll ci leneen loolu déjà soo ko méngale ak li doon am xanaa di nga ni lii constaté nañu soppeeku am na non dama ne man xam nga man xam nga man waxuma loolu hmm. foofu xam nga mu mënu ma wax foofu parce que bu ñuy jël euh, euh, def benn sondage ci benn cas précis d'une personnalité boo xam ne mu ngi ci réew mi religieuse boo xam ne dafay politique am problème ak beneen femme politique nekk bokkoon ci beneen régime bi ñu jël cas boobu ngeen bëgg ko def un pour dire que ni rupture am na. loolu munoo lay. non non non man waxuma loolu man. man man benn cas de. déggoo non da nga ne non da ne non da ne xool même ña mais y' a combien xam nga sànq lay wax. y' a combien de dégg na la mais daa bëgg a tontu leneen. <laughs> <laughs> Aliou mais Aliou daa wax ba pare ngeen mayaat ko pour mu relance mu bëgg te xew mi tamit. yow kii kii ñaata la alors loolu tam war nga koo régler. kii ñaata temps la wax xam nga man man lii moo mooy lii moom mooy fàtt. moi je viens de parler je viens de commencer à parler échanger ak kii nga may wax waxu temps sànq maa ngi wax ni j'aimerais bien que euh, euh, d'avoir autant euh, tu as raison autant tu as, tu as parfaitement raison ñëw di wax loolu da ngay am autant de temps mais yow ku la ku la ku rek nga bàyyi ca la nga nekkoon kon mais Aliou nag xanaa am nga force concentration mën a wax li nga bëgg a wax man maa ngi su may wax yow doo faale da ngay tànqamlu ba keroog ngay pare mais ñii saa ñu la relancer wala ñu cuqala fenn nga tànq mais <laughs> yow loo wax baax na yow eh, loo eh, rek bëgg la <laughs> moom ci wax muy wax naan fu may dagg daf may dagg y une rupture définitive dans ce pays là mais yow pays yow ñii ñu eh, non boo ma nee conviction man mun naa la ne c'est très bien non non xam man yaa ma yeggalul mais on me coupe tout le temps avant ma yeggal parce que man damay am conclusion aussi. boo ñëwee si conclusion bi dama jël. waaw ah, <laughs> mais synthétisation synthétisé moom mu jeex sax. ñu ne ma li li li jot a def la la laaj. laaju la yeneen de. non Diomaye lan la def. lim jot a def. lan la jot a def ñaata mois deux mois yi. Aliou fii am na santé de non dara. on gagne du temps. Diomaye ah. pour le moment xam kañ lay def dara bu jëlee ay décision ci réforme yii mu wax. parce que am na loo xam ne rappelez-vous que ni Diomaye mënul def dara ci justice yéen fàtte ngeen sax ci réew mi ni ci régime de séparation des pouvoirs lañ nekk non non dama ne li ngeen di wax nii nga yow dama ne Diomaye li mu def Diomaye moo moo justice bi ba ba ba li xew. dafa ba dafa ko bàyyi non mais mais Diomaye ngi doo ko commencé am xool am sax ci biir réforme yi sax nga commencé am une idée de Diomaye ci lan la engagé wu waaye salaamaaleykum maaleykum salaam nga ne j'ai une conviction mais neel sax j'ai l'impression que ça va dans le bon sens xam nga tubaab aussi dañ koy dégg non bo man j'aurais dit man moo doon sama conclusion nag man lii mu xam naa la noonu conclure mooy lii sa cas bu rafet la man impression bu baax j'ai une impression positive ci no mais xam nga yow lu la neex xam nga man nekk pour di la neex damay wax rek loo si jël baax na ah cette impression là te fait le toit non non du la non du la amee jugé si sama patriotisme xam naa laay def non impression positive aram aram ma yeggali tuuti rek aram comme ça may wax di la xoolaat <laughs> ci Pa Ousmane li mu doon laaj sànq ci li nga xamante ne jot nga ko gis ndax mën nañ jàpp ne. Oh. ci paa yi ñuy tegu ci wàllu yenn